nekk ak ci xentu gi ñuy xentu jéegoy sëriñ bi sëriñ Touba Xaadimu Rasul dëkk bi di Njaañ nag ci wàllu administration commune la waaye mi ngi bootu ci région de Louga euh, arrondissement bu Koki moom nag ki ko sanc muy maam Jaga Fatim Njaañ mi ngi ko sanc à 1682 ci la sanc dëkk bii di Njaañ nga xam ne ñetti téeméeri at ak ak fanweer mat na ko ëpp na ko Serigne Touba nag tànn ko boole ko ci ay dëkkam ndax mboolem ku fi toogal Serigne Touba tàmbale ko ci Cheikh Mouhamadou Fadal Cheikh Mouhamadou Moustapha sëñ Fallou ba ci Serigne Saliou wax nañ ne ñëw na fi ba ci Cheikh Mouhamadou Amine Bara Mbacké Fadil kenn ku nekk xam ne ne kër gi ñu jàkkaarlool këram la moo ko fi tabax ci biir bi mu nekkee xilaafa ñëw na fi. ubbi si kon loolu it ab cër la boo xam ne nii bu bu ñu Sëriñ Tuubaa séddaat ci keneen wet la ni ma ko waxee léegi Ndiaga Fatim nag euh, nituk alxuraan la woon dëkk bi bi mu koy sanc fekk fi dara moo ko gor dëkk fi ku fi ñëw ku nekk rek da nga ko fa fekk si waaye moom moo moo sanc dëkk bi. Sëriñ Tuubaa li ko indi fii mi ngi fekk si woon fii juróom ci Pataar Naar ndax boobu waajuram di Maam Mor Anta Sali mi fi nekkoon di atteel la Lat Joor Lat Joor boobu mi ngi kër amul yàlla yàlla dogal nag mu dégg fi benn naar bu ñuy wax mu Yadaali ci la fiy ñëw di fi jàng si xam-xam di sàkku si moom ci moom benn téere bu ñuy wax mantix ak ay xeeti xam la yoo xam ne euh, dañuy jàngale ak mën a wax euh, xeeti xam-xamu bayaan ak badix ak mantix yëpp ay xeeti xam-xam la waaye bayaan ak mantix daal lañ wax ne moom moom la fi doon jàng si yàlla euh, dëkk bi wax nañ ne sëriñ bi daana wax ne dëkk bu màndi alxuraan la deret deret codd mu siwe tuuru wax na it ne bu dul suuf si may seet ci ay wanagam lay bokk ndax wax nañ ne fii di Njaañ bi mu gisee suuf si da ko da ko foogoo woon mooy mooy suuf su muy seet muy suuf Tuubaa waaye nag xamal nañ ko ne du ko waaye mu ne bu ko dóorut ci ay wanagam lay bokk moo tax lépp Sëriñ Tuubaa moo fi ne fi ñu tok ni ci barab bi bant bi mooy cosaanul dekk bi fi lañ sotti ñaanul dekk bi <clears throat> ndax dekk bo gis rek am na ñaan ndax xam ngeen ne lu mbé mo jangal jage Fatim <clears throat> bi mu ko jàngalee ba nopi da ko jox ñet téeméeri kamil ak fuk ak ñet lal ne ko barab bang koy ba ngay ba ngay ba nga wër ba ba fa ngay samp nang ko fa def moy ñaanu dekk bi fii ak garab a fi nekkoon <clears throat> garab googu fi la ko sotti woon wàcc fi ay bagaasam yàlla dogalee garab ga daanu ci lañ jël ci jeexit yi samb ko fii waaye lii mooy ñaanu dëkk bi kenn ku nekk dana dégg njaañ ñu ne bokk na ci dëkk yi nga xam ne duñ gent loolu mooy sabab ci histoire su dara amee ñu ne loolu mënta am ndax wala ñu ne njaañ tas na su mbir mu garaaw amee ñu ne eh njaañ tas na loolu wax la wax la boo xam ne nii euh, ci niñ koy dégg mooy dañ mel ne nee dëkk bi niñ ko niñ ko sampee dafa am doole maanaam du gent mukk waaw alxuraan lañ ko sampe ndax wax naa léegi ñetti téeméeri kamil ak fukki kamil ak ñett moom lañ sotti fii moo tax barab bii mooy barabu ñaanukaay bi fii la ñuy wax jàkkay naar mooy place bi ñu leen doon wax ne leen fi la sëriñ bi daan ñëw sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di fi sàkku si xam-xam ci benn téere bu ñuy wax maanaam mantixa ak bayaan ñaari téere yooyu daf doon sàkku si ci ku ñu wax Mouhamadou Yadali moom moo moo dëkkoon fii fii ab barabam la woon fi la daan nekk fi la ko sëriñ Tuubaa daan fekk di jóge Pataar di fi ñëw di fi jàng su noppee euh, dem Njaay julli ca jumaa ja soog a ñibbiwaat wax nañ ne sëriñ ajjuma ba mi nga xam ne mooy wàllu yu mag woowu nekkoon gët ardo gët ardo xam nga ne soriwut ak njaañ wax nañ ne moom moom fii lañ daan gisee ndax bu fi bu fi masaana ñëw euh, sëriñ Mouhamadou daal da koy xamal ne ko sëriñ bi ñëw na wax ko heure yi fi sëriñ bi di ñëw mu wax ko ko fi ñoom ñu daje fi wax nañ ne kilifa googu fi la fii la masa fekkante sëriñ waaw ci noonu wax naa léegi ne Euh, sëñ ak juma ba fii lan dajeeg euh, Serigne Touba fii la ko daan gisee loolu sax moo waral bi fi sëriñ bi jógee Serigne Touba Khadim Rasoul euh, am na ay bagages yu mu joxoon sëñ Modou Moustapha jox ko ay tegtal wax ko ko fi njëkk ñëw te ñëwee na mu waxee nga jox ko ko wax ne sëñ ajuma ba mi moo fi ñëw mu jox ko ak satala akub der ñu ngi fii ci gitaar ñoom ñoom ko sëñ bi bàyyi. sëriñ Abdul Xaadar Gay mi nga xam ne sët la ci euh, sëriñ Modou Lamine Gay Firdawsi nga xam ne doomi sëriñ Alamin Gay la nettali na ma ne barab bi ñu nekk muy jàkkay naar jamono bi fi sëriñ bi daan jóge jóge pataar di fi ñëw sàkku si xam-xam boobu mi ngi daan ànd ak sëriñ Modou Lamine Gay Firdawsi moomu nga xam ne ci gaa yi sëriñ Tuubaa yi mu defaroon la bokk wax ne jamono boobu ñoom ñaar ñu daan ànd moo ko daan wutal ay satal yi muy jàpp ak defee nag barab bi ñu nekk Euh, mu ngi tegu ci loxol sunu imam Serigne Ndiaga Diagne euh, tey moo koy saytu moo koy sàmm incha allah rabbi daara lañ koy def daara dafay bokk ci université Serigne Touba ko bëgg boole euh, xëy na ñu ngi ci wàccaay ak ak ak ci projet yi plan yi ni koy def rek waaye incha allah rabbi daara lay doon ci loxol Serigne Ndiaga la nekk moom moo koy saytu di ko sàmm waaw kon nag incha allah rabbi bu nu bàyyi ko fii dañuy dem ci jàkka jumaa ji nga xam ne. Euh, bi fi sëriñ bi daan bàyyi ko fa daan dem di julli nga xam ne wax naa la ci wàllu histoire na la euh, jumaa ji muy jumaa Njaañ moom lañ xam ci foo xam ne sëriñ Tuubaa mas na faa julli ajjuma dëkku maanaam euh, jumaa Njaañ yàgg na wax naa la ko léegi ne la ndar Piri Njaay ñoo njëkk am jumaa ci réew mi waaye nag jamono jooju jumaa dafa jafe kenn ku ne xam ne dawuñ ko tabaxe comme nit ñu koy tabaxe boobaa nekk nañ ne ñu am na am na fi jamono joo xam ne nii jumaa ji ay jëni jana lañ fi samp rek mu wër ko waaw jëni jana lañ samp rek mu wër ko ñu demaat ba yàgguñu tabax ko waaye biñ ko tabaxee kaw gi xëdduñ ko ak tabaxu doj waaye dañ koo def tiwil tiwil bu xonq lañ teg ci kaw ginnaaw jumaa jooju nag ci la ko njabootu gi sëriñ Serigne jaañ Diagne bàyyi ci jiitu Serigne Amar Diagne Serigne Ndiaga Diagne ñoom ñoo def fondation bi Serigne Mourtala Mbacke moo doon teg xew yi en 1994 1994 boobu ci lañ tabax jumaa ji mu àgg nii xëy na yaakaar naa ni danañ ko ubbi ci kanam waaye ñu ngi ci julli di ci jaamu yàlla waaye nag wootee buñ ko woote ubbi waaye 1994 te leen ko teg xeer si sëñ Mourtala Mbacke moo ko teg tàmbali ko liggéey waa Njaañ képp nag ñoo ko liggéey ndax sëñ Fallou Mbacke daana wax ne jumaay Njaañ waa Njaañ ñoo koy tawax loolu nag kàddam googee dëggu na ba euh, noonu la ko yàlla tew féexale ñu ñu def ñu def ci sunu ñax ba mel nii waaw kon mbokk yi fii ñu taxaw barab la boo xam ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul daana fi ñëw balaa ñëw ci jumaay jaañ ji bala cee julli si fii la toog di xaar waxtu wax naa la ca histoire ne la Serigne fépp fu ñu la mas na faa julli ci jàkk wala jumaa am na fa barab boo xam ne nii daana fa toog ci wet su ko defee bu waxtu wa jotee mu soog a dem julli ndax daawul jaxasoo nit ñi ñàkk boobu nag moo tax ñàkk ñu daan ñàkk jaxasoo nit ñi moo tax mu daan beru barab barab bi ne ci barab bi mu daan beru la di xaar waxtu bi la bokk. suñu jógee fii ñu ngi jëm ca euh, armeel yi armeel yi nga xam ne ay denc Serigne Touba dafaa nekk waaw armeel yi xam ne ay dencam dafaa nekk bokk ci denc Serigne Touba yi armeel yi bu ñu bàyyi barab bi de moom barabu Serigne Touba la moo nu mag ba ñu fi doon fekk suñu bàyyi dëkk bi teewoon fi ay bat ñu daan koy fekk booba ay tuut tànk lan ban fi ñëw yàlla dogal nag. bu ba jamono yi lañ koy def nii sax ba bëggoon nañ mu gën a baax yàlla dogal nii la nii la yemagul ak sama mag fi dëkkoon toxu Tuubaa ñu nee nag jox ma kër gi ma ma ma ma yor ko nii moo waral ngeen fi lii. Ah, li suñu coob rek suñu yéene nag moom dem ba dem ba mel na bërëb yëpp yëpp incha dem ci barabu Serigne Mbacke Anta Serigne Mbacke Anta euh, moo maam Seex Anta ñoo bokk way jur wu jigéen kon moom magal la woon ci Serigne Touba Khadim Rasoul moom na mi ngi wàcc liggéey en 1879 fii ci Pataar ñu indi ko Njaañ incha allahu rabi daañu dem ci barabam bi mbokk yi ñu ngi fii ci mbarabu maam Mbacke Anta mi nga xam ne doomi soxna Anta Ndiaye Mbacke la muy bokk ak waajur maam Cheikh Anta Mbacke moom gaawaan yàlla dogal moom mag la ci sëriñ bi ci Zahir sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xamee ne wàcc na liggéey ca Pataar Naar boobu fi nekkoon ak waajuram ndax waxoon naa la ne la ñoom ñu ngi fi ñëwoon ak mille huit cent soixante jamono boobu nga xam ne day mel ne lañ fa am mën na fukki at yu topp sax ndax quatre-vingt vingt lañ fa jógee dem Mbàkke Kajoor daal di koy sanc foofu nag fi la wax ne dafa waxanteeg sëriñ ne ko ñaari jant lañ duñ mën a fenkandoo maanaam ma Mbàkke Anta dafa wax ak sëriñ Tuubaa ne ko ñaari jant lañ duñ mën a fenkandoo damay suuf nga fenk wala nga suuf ma fenk ca nag ci la fi bàyyi ko wax nañ ne keroog waajuram moo joxe ndigal ñu rob si ko fii ci Njaañ bi muy ñëw dafa am ay tegtal yoo xam ne nii moom la leen joxoon ne leen buñ àggee ñu denc ko noonu la ci jëkk mooy dana leen li fee ngeen di àgg Njaañ ba mu laal suuf nga xam ne ñu ko doon jàppoo wax nañ ne ko sonn sa morom mu lay aw waaye kenn du ko teg fi suuf daan na leen bu ngeen àggee euh, bu njëga fatim ci sow ba am na garab gu fa nekk garab goge wax nañ ne garab kad lawon moy len bu ngeen agge bankas bu fete sow fo mu sëppe fofu mom moy barabam wax ne ne garab gi dafa amoon bankas bu fete sow bo xamni dafa euh, dem ba ba fam yam mu daal euh, sepp jom suuf mo ne fofu mu sëppi nak fofu lañuy def Mbàkke yalla dogal na wax nañ ne duñ ko defale kër gi ba nopi ba war ko denc dafa sisu sisu yakarna ñu bare bare xam nañ ko mooy eh, mel na ko gàntal maa ngi maa ngi dugg ci biir wax na ne bi ñu jëkkas ni kuwaatee yëkkatiwaat mu daal di siisuwaat ba ci ñetteelu yoon la ca lay doog a nangoo dugg eh, bi ñu ñëwee nettali ko sëriñ bi eh, wax na ne da leen laaj ne nan ngeen def ak mbàkki ñu ka ah, ñun kat xaw nañoo jaaxal xaw nañ ci amu jaaxle nettali ko ni mu mooy leen xam ngeen bañ bu njëkk yi lu ko waral ñu ko dedet moy da doon ñaan boroomam bala fi dugg ku ku fekk nañ ko jégal ba xam ngeen bañ ko ñaareel bi lako waral la ñu ko dedet moy da doon ñaan borom bu fi duggé ko fekk ba yow xiyam nañ ko jéggal biñ ko nangalo ñaar yoy nak ci la soga a nangoo dugg moo tax suñ Musaa Ka naan njaañ la ko ñaan <coughs> la ko baye ba allah ba mu rambu len ba ram mo mbolem barba manam ram ko kooku mu doon def ci ci ci laataa mu muy dugg mom la jub la wax noonu kon kii mooy Serigne Mbacké Anta kon moom mag la ci Serigne bi ci zahir euh, moo bokk ak maam Cheikh Anta wayjur ñu wax Serigne Mbacké Anta barab boobu ngeen di ci kër Mandoumbe seere bala nekk kër mënu mi rek moom Njaañ daanaka sorewul benn benn la fi la sëriñ euh, Mouhamadou Abdoulahi tëdd moom nag wax nañ ne bi mu fiy jógee tu tànk la woon waaye juróom euh, xam ngeen ne gànnaar la euh, maanaam foofe la ko amee wax nañ ne booba sëriñ lu moo ko batale wax leen nañ ko indi am ay taalibe yu ko booleel ñu war koo indi waaye dafa agsi rek daay làqu euh, mu waxoon leen fañ koy denc ndax booba xam ngeen ne foofa dafa amoon ay armeel yoo xam ne nii armeel yi jaam lañ ko daan wax euh, am armeel yoo xam ne nii muy armeel yi ku doon gor ñu indi fi sëriñ bi nag bëgg dindi loolu daal di leen di jox tegtal ne leen boo wàccib liggéey nañ ko suul ca fa ñuy wax geer loolee geer loolee dafa bañ a tudd turu jaam ya mooy nañ ko nañ ko nañ ko yóbbu ca geer loolee moom foofu foofa ca armeel yooyu lañ ko denc mooy sëriñ Mouhamadou Abdoulahi moom mi ngi nekk Kër Mandoumbe Kër Mandoumbe Njaañ nag benn kilomètre la sëñ Modou Fatim barabam dafa xawoon a nëbbu wax nañ ne genn góor gu nekk tëndeefut moom la leeram daan feeñ saa su nekk mu yeble fi daal ne bu ngeen demee ci armeel Njaañ ci koñ ba féetee sow di joo xam ne nii bis bu set leeram gi fekk mu fii di ma jàmbat dan ne bu ngeen fa àggee da ngeen fekk tànk ya garab sax na fa ak ndigg la ak bopp ba bi ñu lañ fekk mu def ko fekk xamoon nañ ne am na ko fi di waaye xamuñ doon ci jamono nag la sëñ Abdul khadir ñëw di ko laaj bañ indi ko fii ne ko fii daal ku ñuy wax Faati lañ fi xam bi mu agsee daal ne Moodu Moodu ji daafar Moodu ji daafar sëñ Moodu Faati la ji daafar mbokk yi ñu ngi fii ci barabu Cheikh Mouhamadul Hayyi moom nag kenn ci sërif yi naari gànnaar yi la bokkoon kilifa la fa lool yàlla dogal 1926 ci la ñëwoon fekk Serigne Touba Njaaréem wax nañ ne bi mu fay ñëw it dafa am yitte ju ko fa taxoon a ñëw noonu sàkko ci Serigne bi moom nag borom ma xaaw mu kawe woon ñu ko daan wooye kasful xumma balaa dara daaraa xew daana xam daana ko xam lu sori lu yàgg loola doog a loola doog a barab bi ngeen di gis Serigne Touba Xaadimu Rasuul moo fi daan ñëw jumaa ji ngeen di gis ci wet gi dafa daan dem di fa jullee ndax Serigne Touba kenn ku nekk xamoon na ne euh, fépp fuñ ne la julli na fa ci jàkk boo xoolee ci wet gi toog na fa la ko waral mooy dawul jaxasu nit ñi ñàkk ki mu daan jàkk jaxasoo ñoom nag moo taxoon muy am foo xam dafay beru euh, di fa jàng wax nañu daana fi yenn ba ngoon mu soog fee bàyyi ko soog a ñibbi pataar naar pataar naar mi ngi euh, fii fukki kilomètre ci sunu kanam. waaw barab bi it xam nga ne soriwul ci biir Njaañ mu ngi ci penkoom ci euh, wetu daara ji ñuy wax daaray penko yàlla dogal na léegi mi ngi nekk ci loxol sunu jëwriñ Serigne Mor Diagne moom la ko yàlla séddee moo koy sammu di ko aar incha allah barab la boo xam daal barabu sakkuwaayu sakkuwaayu ñaan la ndax barabu Serigne Touba la fépp foo xam ne nee nañ la Serigne bi am na fa as ndiir rek foo xam ne nii dafa daan ñëw ko ñëwaat. moo tax euh, muy loo xam ne li ñuy wax fàgguteef mu xëcc ko ba womat ko ba teg ko ci loxol sëriñ Mor muy barab boo xam ne mën na si mënees wax ne daal daara la rek daara la daal mooy barab bi. xam ngeen waxtu wi Serigne Touba di ñëw fii ci Njaañ booba mi ngi bàyyi ko Pataar te xam ngeen ne booba Pataar Mamour Anta Sali fa la nekk di xaadi di maanaam di atteindre Lat Joor Lat Joor mi ngi kër amul yàlla ndax ñoom ñaar jawuñ bokk benn dëkk bu ñu nekk. ci li fi sëriñ ba daan jóge rek di ñëw fii wax nañ ne loolu mi ngi tolloog 1871 euh, ndax 1871 jooju ci lañ bàyyee ko Poroxaan ñëw fii ci Njaañ maanaam ñëw fii ci Pataar Pataar Naar euh, wax nañ nag euh, ñoom bañ fay jóge dañ faa bàyyi woon sëriñ bi dañ faa bàyyi woon sëriñ bi ginnaaw bi nag la leen fa sëriñ bi fekk si la fekk si fii ci Pataar wax nañ ne ci waxtu woowu nag ci la daan jóge Pataar di ñëw Njaañ di jàng si jamono bi ñu tollee ci 1879 ci la magam ju baax ja muy maam Mbacke Anta wàcc ab liggéey ñu andi ko fi rob ko fi euh, ginnaaw loolu la sëriñ bi taxawu daara ji nag téye euh, ba biñ fi jógee ci 1881 ci lañ sanc Mbacke Kajoor euh, ci la fi sëriñ bi ñoom bàyyi ko nag soog a dem Mbacke Kajoor booba Lat Joor mi ngi deqale kon loolu mooy li nga xam ne moo sawaboon sëriñ bi daan jóge pataar di ñëw fii di di di sàkku si xam-xam ci naar boobu euh, xam-xam biñ fi fi doon sàkku si it mooy mantix ak bayaan ndax wax nañ ne jamono boobu naar boobu ko doon sàkku si moom moo amoon ñax bi mbindum téere bi ñax bi dawut sax di ko nangoo jox lépp sëñ bi daan fi ñëw mu di ko jox ab jukki su ko jàngee delloosiwaat ko mu jukkilaat ko muy baagante loolu moo moo taxoon mu fi ñëw lu baree baree bare ci waxtu woowu nag. Euh, wax nañ ne ci li gën mu jullee fi ajjuma ci la juma ndax xam ngeen ni juma njaañ ji mooy jumaa ji nga xam ne ci Sénégal moom la wax ne foofu fi lañ xam fu mu mës a julli ajjuma mi ngi bàyyi ko ci lamiñu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké mo na ko waxoon daan nañ ko yokk te méngale ko jamono dañ ko yokk ci wetu penku bi te ko jamono ndax fi rek fi lañ xam fu bi kon loolu mo sababon mu fi dan julli ajjuma wax nañ ne julli ajjuma yi sax du ben du ñaar maanaam ndax yoon wu ci su ko fi ajjuma fekkee da ko fi kon mbokk yi ñu seetaan lii mooy tuuti ci histoire bi nga xam ne Njaañ am na ko ci diggam ak Serigne Touba ndax xam nga ni Njaañ diine yàgg na fi ndax bi koy sañci ci wax naa léegi ne la ci alxuraan lañ ko sanc ci diine lañ ko sanc kon da nga xam ne am na diini maanaam tariixa bu fi jiitu woon wax nañu tariixa xaadir la woon moom moo fi jiitu woon kon Njaañ yàgg naa yàgg nañoo feeñ ci diine waaye bi Serigne Touba ñëwee nag kenn ku nekk xam na ne Serigne bi laataa muy wootee dafa wër tànn fenn fu nekk bi mu wootee lam tànn moo ko wuy si Njaañ nag dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la Serigne Touba woo ci wooteem bi moo tax. Euh, am na ñoo xam ne nii nekk nañ ci yeneen tarixa yi waaye mën naa ne tarixatu murid yi moom moo fi not mooy mooy mooy mooy mooy population bi nga xam ne moo not